présentation bi euh, rek ma koy waxee coordonnateur commune bi kon duñ def lu dugg ci euh, waxtaan wi muy nekk gis nañ la nga nekk un opérateur économique en même temps di yëngutu ci politique fii ci euh, département de Mbacké ana lan moo la motiver ba tax ngay def jéego yu mel noonu. yàlla dogal ñu gis ne euh, ñun dañoo war a def politique li tax ñu dañoo war a def euh, dañoo gis ne Sénégal euh, nekk la dëkk boo xamante ni nit ñi mun ñoo toog di ko seetaan mhm. bépp Sénégalais bu fi nekk am fi xalaat jàpp ne yow mii boo joxee xalaat bii nii dina bokk ci liy doxal réew mi war ngaa futteeku ñëw bokk ci ñuy joxe xalaat boobu loolu moo tax ñu ñëw def suñu bopp ay acteurs politiques pour mën suñu xalaat ñu gis leen ngeen bokkoon ci benn coalition EDI 2019 naka mën nañu dikkal ci organisation boobu ak yan disposition ngeen jëloon ba ndam li ngeen am ci département bi ngeen am ko. waaw jërëjëf xam nga coalition EDI 2019 euh, ñu def ba am ndam li ñu am euh, du dara lu dem wax ak Sénégalais du dara lu euh, wax ak population. Touba rawatina euh, département de Mbacké bi nga xamante ni yàlla dogal nañu dañu fa largement euh, loolu nag li ñu ko may euh, mooy dem ci ñi wax ak ñoom présenté leen programme boo xamante ni dina nekk programme boo xamante ni dina leen convaincre mm-hmm. loolu moo tax ñu gis victoire bu écrasante bi nga xamante ni am nañ ko fii ci Touba am nañ ko fii ci département de Mbacké ñu ci sant yàlla bu baax a baax di ci sant population Touba yépp di ci sant ñi nga xamante ni àndoon nañ ko ak ñun ñëpp muy parti allié yi muy mouvement citoyen yi muy mouvement politique yi mm. euh, booy xool euh, dama naan jeunesse Touba ak jigéenu Touba ñoo génn massivement mm-hmm. pour euh, voter ki nga xamante ni mooy président ci biir mobilisation boobu taxawaay boobu ay jeunes yoo xam ne que ni na nañ ñoo yow yéen bokk ci milieu professionnel bi ay opérateur taxawaay bu nga xam ne jaaxal na ñu mel ne man di yëngu ci wàllu communication parce que gis nañ leen ñi nga xam ne sax dara leen dagg biyee ñëw Sénégal am ci yenn taxawaay taxaw ndax dafa am ay kilifa yu ci impliqué woon wala lan la. li ci wax lu lu simple la li président Idrissa Seck wax rek laa lay wax mooy euh, yàlla dogal na dem nañ ci élection dem nañ ci jàmm Sénégalais yi voté nañ décidé nañ li ñu décidé nag mooy changement la ñu bëgg li ñu décidé mooy déjjati Macky Sall la ñu bëgg mais. Macky Sall ci ak volonté wu tappaleem ñu gis ne mom confisqué na volonté wu sénégalais lolu moy li am ci résultat yi ndax euh, am ci lo xamanteni ni ñu ci tok ci détaillé nan ni la demee ñun ñëpp ñoo ko gisandoo ñoo ko xamandoo mooy Macky Sall xam na ne ñàkk na élection yi ci lu leer mais calculé na dem génn ji ay résultats yo xamanteni daf ko falsifier lolu leer na ñëpp ndax mënuñ dem élection ñu ne euh, scrutin bi 18 heures lay fermé ñu dem 21 heures 22 heures premier ministre génn. Mm-hmm. ñëw di joxe ay résultats yoo xamante ni ñëpp xam nañ ne du ay résultats yu normal. Mm-hmm. ci moment bi muy génn résultats yi 15 pour cent wu Sénégalais yi voté mm-hmm. maa ngi jum ci moment bi muy joxe résultats yi 15 pour cent ci résultats yi génnagul ci rajo te am na ay dëkk ci Sénégal yoo xamante ni voté guñ woon loolu nan lañ ñu mën a sukkandikoo bay génn naan am nañ 57 pour cent boo gisee ñu ne rejeté nañ. Euh, li nga xamante ni moom la commission nationale de de recensement des votes génne mooy ñaata la génne 58 pour cent la génne premier ministre wax 57 donc loolu luñ préparé la am na ci loo xamante ni ñun duñ ci nekk di ci perte suñu temps premier ministre bii fi nekk lu Macky Sall bëgg ci ay tappale moom la koy wax xam nga président Idrissa Seck day day tooñ di wax naan. Euh, Abdallah Dionne moom bu ko bu ko Macky Sall ne ah, waaw foofu foofu tamit foofu tamit foofu foofu ma fëri dafay wax ne Abdallah Dionne bu ko Macky sàll ne woon neel jant bi Ouest Foire lay soowee sax mu génn wax xam nga ku noonu tey nit ñi waruñoo sax bàyyi xel ay waxam ku mel noonu moo taxawoon tey daal di cinq candidats opposition bi am te li mu waxoon loolu lañ def donc da xam ne ñooñu dafa am lu ñuy préparé Macky Sall moom luñ mën a wax mooy. lu mel na lu mel na lu mel na dafa delloo ginnaaw suñu démocrate. vraiment fii ñu toll nii boo rappelé woo ci ay vingt ans vingt ans ci ginnaaw da nga naan élection wu Sénégal est ce que wuru ñu mais président Macky Sall résultat yi ba wax bi résultat opposition kenn ku xam nga ñun di dem ci ay recours xam nga foo fekk buy ak

taxaw ne gañe naa ba pare di sàkk pour ñu féliciter loolu mooy yow ngañaay di ngay woote ne am nga ko gëmoo ko parce que xam na ne du dëgg sénégalais yi ñëpp xam nañ ne victoire bii Macky Sall di wax naan am na ko amul du dëgg ndax mënul mënuñoo dem ci élection ñu ne dañuy jox ay résultats provisoires candidat bi nga xamante tak ñëpp xam nañ ne moom moom nga demal deuxième tour nga ñëw assiégé këram ak ay tak der tak der yi nekkoon kër président Idrissa Seck muy policiers ak gendarmerie lan lañ fa doon ci joxe résultat kese moo tax ñu toogoon di xaar ay résultat ci Demba Kandji dama ne leen mais résultat yaa ngi nii leer takk der yaa ngi nii kër président yi ñoom lan la xaar bëgg nañ joxe ay résultat yoo xamante ni baaxul jàpp nañ ne da ngeen di créer fitna moo tax ñu ñëw taxaw kër président yi wax ci loolu mooy ñun ay démocrate lañ ay républicain lañ président Idrissa Seck ku ko xam danga xam ne kii homme d'état di nga xam ne kii nitu jàmm la du dox ci ay donc li ñu war a jàng ci moom mooy kuy xaar fitna wala benn problème am ci Sénégal jóge ci président Idrissa Seck kooku foofu noonu dañ fi tax a taxaatu seetlu yi ndax yàlla na dëkk bu sell mel ne Touba ñu fi dëgmal lu mel noonu kilifa bu mel ne rang bi pour Boun Abdallah Dionne ñëw ci kilifa gu toll moom di ko seet si te ñu wax ne gat taaliba ci kër ga yu mel noonu di ci am en bi nga xam ne ne l'avenir politique bu département bi seen i loxo yéen ñu mes loolu ban message ngeen ciy joxe. boo ko waxee daf may jaar parce que boo nee ñenn ñu bokk seen coalition mhm. parce que man loolu bi muy am. gis naa image ci benn groupe taxaw ma la boobu ñun ñu ngi si caravane nekk si bi donc du duñ ay waa coalition ñun suñu coalition durant campagne bi yëpp li nekkoon suñu yitte mooy dem ci Sénégal yi wax a ñoom amul benn carte ci Touba boo xamante ni coalition bi déggu fa tànkam

ñi nekkoon ci terrain bi di fight ba Idriss Seck jàll parrainage bi changement boobu amee nan lañ ko dundee. non dunduñu ko dara euh, lépp day duggaat ci mën a wax. xam nga 27 candidats yooyu dañ ko doon pare ñu ñu arrêté ñu bàyyi 5 mu li ciy jàng moom Macky Sall day choisir ay adversaires. ñan mm. lay demal ci langue bi daf choisir mais dafa war a xam ne gis yu ay nit. volonté wu population bi mu ëpp doole loolu muy xalaat te loolu moo ko fi jëlee xam nga lii mu def nii tey bii jàpp ne toog na am na toogaay bu rafet moo nekk président ngand ngand lu loolu amul njëriñ xam nga lan moo am njëriñ nga gagné ak manière nga gagné am légitime xam nga Macky Sall tey jii ba léegi légitime mënul taxaw tey jii naan maay président boo xamante ni sénégalais yi ñoo ma fal sénégalais yi fal moom moo falsifié ay ay résultats am génne ne am na 58 pour dafa nekk loo xamante ni vraiment euh, ci ci dayo bi nga xamante ni moom jàpp nañ ne président de la république dayo boobu la war am moom xamu ko ndax Macky Sall fi mu fekk suñu démocratie li ko Ablaye Wade defal moom tey ak li mu jàng ci keppaaru Ablaye Wade ci jamonoy 2000 mu dem élection ànd ak Ablaye Wade gis li Abdou Diouf wane ñu dem ci élection yu libre ñu transparent Ablaye Wade gañe mais am na ci ay signes yoo xamante ni man na feeñ ci nit ki ba daf koy topp parce que en 2000 bu ñu rappelé woo Macky Sall dafa dugg ci bureau jaxase bureau ba ñëw voté sans carte d'identité loolu moo ko topp ba léegi ni jàpp na ne lépp lu muy def ci fitna la ko war a defee ci ay tolof tolof la ko war a defee ci fitnaal Sénégal yi la ko defee mais na xam ne Sénégalais yi seen seen seen seen gëm-gëm ak seen bëgg-bëgg réew mi dépassé la ko. tey euh, fi élection yi mujjee en tant que coordonnateur communal bu parti Rewmi ci nan nga jangate ëllëgi coalition bi ci élection yi ñu jëm mën a descendre. ñun ci biir coalition loolu dama koy wax fi ñu ngi déclarer solennellement que ne ñu ngi invité opposition bépp ñu ñëw réunir and def benn bloc pour jële fi li nga xamante ni moo nekk fii ci suñu département ndax changement lañ bëgg ci Sénégal mais changement lañ bëgg ci Touba aussi parce que gis nañ ne euh, opposition bi moo majoritaire ci département de Mbacké donc lu fiy nekk rek ñun ñoo ko war a contrôler ndax Sénégalais ñu lañ jox bok Sénégalais suñu programme lañ lire xol ne ñi ñoo leen doy ci seen gox donc euh, opposition bi nek Touba dinañ waxtaan euh, élection yi des na pratiquement 8 mois 9 mois mais danañ am ay jataay yu bari yo xamanteni dinañ ci tok waxtaan xol nan lañ ñu préparé nan lañ défé ci élection waaw jërëjëf euh, ci yooyu nee fiñu jéxalé jeexale émission bi rek moy ni gis nañ bërki dem rek sa mbokki commerçant wala sa mbokki opérateur économique am jéey bi fa am ne lakk bu méttee métti ñu gis yi taxawaay bu xam ne population bi ñu ngi joxuñu bopp baaraam tuuma sapeur pompe yi gën a gën bu defoon seen liggéey xëy na lu egg foofu yow loo ci wax euh, waaw euh, xëy na li ma ciy wax sax man damay damay damay jaajëfal sapeur pompe ndax euh, loolu bi muy am man maa nga fa woon maa ngi woon ci barab bi lakk gi doon amit gis naa la ñu fa daj gis naa engagement bi ñu doon jël pour jéey ji bañ a àgg foofu ginnaaw bu ñu suñu xarit suñu mag muy Abdou Lahad Lay li nga xamante ni moom la jéey ji dal ci kaw ñu ngi koy masawu bu baax a baax vraiment euh, di ñaan yàlla mu teggil ko lii ba tegal ko leneen loo xamante ni moo gën lii mais man du ma balaame sapeur pompier parce que sapeur pompier yi li ñu man loolu la ñu def ñëw nañ ak ay moyens yi ñu am dugg ci biir fay affaire yi doon doonte jël na temps ndax ñun ci suñu responsabilité li nekkoon suñu rôle ñi ngi ci woon ñu ngi doon def ay démarches pour rafor ñëwoon jéem jéem nañoo jot ñi nga xamante ni ñoo nekk ci mair bi bañ jot gouverneur ba waroon am renfort yu ñëw ci ci dëkk bi pour jéeg ji ba ñoo la àgg fa mais sapeurs yi defuñu daal sapeurs yi li ñu am lool lañ indi ndax seen citerne bi ñu indi mu commencé di fay lakk ji affaire bi jël temps ci la beneen citerne bi ñëwee beneen citerne bi fi ñëw association Touba ci kanam moo ko jox sapeur pompier mais loolu da nga ciy jàng que ni Macky Sall ak ñi mu àndal. ñàkk gi mu ñàkk fullaal Touba ndax dëkk bu toll ni tuubaa ñu ne benn camp sapeur bi moo fi nekk matériel bu doy amu fi ba ay association ñooy jël ay citerne d'eau di ko jox sapeur pompier ak ay ambulance di leen ko jox xam nga loolu dafa ñaaw ñaawaay boo xamante ni boo gisee ñu naan Macky Sall lan moo tax mënul gañe Touba Touba dañoo am fulla Touba dafa nekk dëkk dëkk boo xam dañoo am fulla ci seen bopp mënuñoo gis lu dul dëgg taxaw naan lii dëgg la mënuñoo gis Macky Sall bi leen ñàkkal fayda à tout moment di leen wan ne aw ma soxla ci yéen ñuy jël suñu électorat di ko jox loolu amul loolu yanul maanaam loolu moo waral loolu moo tax euh, lu mel nii bu amee vraiment dañuy wax ne nañu joxaat Touba gëdd gi mu am Touba du dëkk bu ndaw mënuñ ne moo nekk deuxième ville du Sénégal ñu gis jéey ju mel ne am sapeur pompier di fa am 3 heures wala 4 heures de temps ci mënuñ koo fay ci benn boutique bu doon lakk xam nga loolu dafa kéemaan yemul foofu amul secteur boo yu dugg te doo problème yooyu donc loolu diko wax ci tuuru Touba yëpp di ci addu ci tuuru président Idrissa Seck nga xamanteni ñepp xam nañ yëg-yëg bi muy am ci Touba ñepp xam nañ bëgg gi mu bëgg Touba. kon ñuy di mbokk yéen ñu am ñun ci seen émission face à Mourides point info ñu def lu jox euh, sëñ Mor fari mu joxe ay kàddu vraiment sa liggéey ndax euh, gis nañ la euh, chaque jour ñu ngi daje ci terrain bi ñu gis ne nit nga koo xamante ni ku bëgg li ngay def nga. nit nga koo xamante ni aussi euh, ku ci dem ak professionnalisme la te loolu mooy ci li am solo di leen wax ne leen milieu bi ngeen nekk ngeen bàyyi xel bu baax ndax milieu taskatu milieu tas xibaar dafa nekk milieu boo xamante ni pouvoir la tas xibaar boo ci nekkee mën ngaa defar man ngaa yàq mais heureusement bañ la gisee nga bokk ci ñi nga xamante ni ñiy defar lañu. donc ñi leen tuuti dañu beneen beneen